إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بوك جولي ñi ngi sant suñu boroom mi boroom bindaa fan yi boroom yërmande ju yaatu jooju ki nga xam ne moo moom àdduna ak allaaxira dénk ko benn jaam mayu ko benn jaam la gën a kawe ca la nga xam ba la gën a tuuti ca la nga xam ci loxoom la nekk amul luy wëlbatiku lu dul ci ndigalam amul luy sosu lu dul ci coobareem ñi ngi seede ne moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu di seede ne muhammad ab jaamam la woon di yonent bu mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ci fu ngeen wéet ak fu ngeen nekk ci mbooloo waaye ñi ngi leen di dénkit ngeen di jàng téere bi yàlla bi di alquran di settantal la ca yàlla di wax mu jëm ci ay jaamam loolee mbokk wareefu kum mën a doon la ci ay jaamam ngalla way bu dee ni yàlla def na bokkoo ci ñi mën a tiim téereb yàlla bi di ko jàng di comprendre fa lillahi alhamdu suñu borom yàlla indi na aw lay ci kaw ay jaamam tey jii bi informatique développé doomu aadama bi foo mën a nekk tey ci kaw suuf ak langue booy mën a làkk da ngay gis ne lii di alquranul karim tafsir nañ ko ca ba nga xamee ne nii da nga mën a toog mën a déglu fatiha baqara ba naasi lan la yàlla di wax ak yow ngal la waay suñu temps yi ñuy yàq ci lu kenn xamul nañ ko jagleel jéem a xam téere borom bi loolee na doon ay góor lañu wala na doon la nga xamee ne nii mooy ay jigéen maa ngi fàttali benn soxna bu ñu leen doon wax mu faatu fan yi paase di fatimatu zahra yal na yàlla subhanahu wa taala defal ko ajjana muy wàccuwaayam bokk na loo xam ni ay témoignage yu ñu témoigné ci moom muy këram heure boo masaan teg sa tànk ci buntu kër gi la ngay jëkk a dégg mooy tafsirul quran boo xam ne mi ngi jolli foo mën a toog ci kër gi moom yaa ngi déglu alxuraan loolee ñu bëri bëri ñoo ko seede ci moom ca pourtant jàngoon na ba dem université ca pourtant relation yi dul jeex amoon na ko pourtant bunt bu mu fëgg ñu ubbil ko ko waaye tiire bi yàlla bi noonu la taxoo woon ak moom su ko defee loolu mbokk ngeen bàyyi ci xel bu baax ñu taxoo tiire bi yàlla bi di ko jàng tiire bi yàlla boobu daa ñëwoon di ñuy waajal ngir bis bu màgg buy ñëw suñu kanam di yowmal qiyaama boo xamee ni nii jaam yi kër kër yépp dañoo bëgg a texe yowmal qiyaama doonte ne ne yoon yeñ jaar bokkut yoon wa yàlla tëral nga xam ne moom la yonent yi nekkoon nit ñu baax ña nekk ca mooy yoo yoon wa nga xam ne ka ca jaar ku mel noonu day su demee àjjana moo koy xaar yal na yàlla boole ñu ca waaye mbokk yoon woowu lan moo koy jàngale ndax ay gént ndax ay xuraafaat ndax ay may yu ñu jox suñ diw ak suñ demba mbokk yoon boobu mooy téereb yàlla bi jalla wa ala mooy alquranul karim siratullahi almustaqim képp ko bëgg a texe ëllëg ci téere yàlla boobu rek ngay jaar téere yàlla boobu fukki saar la téeméeri saar la ak fukk ak ñeent di 114 waaye mu am ca benn saar boo xam ne dañ koo far tudde moom yowmal qiyaama muy suratul qiyaama looloo tax suñu xutbab tey ñu bëgg koo fàttali mbokk jamono yi ñuy dund jamono yi ñuy dund képp kuy déglu suñu rajo yeeg télévision yi ngalla waay da nga sànku ci allaaxira naka lay demee doomu aadama yi nañ gëmee na allaaxira noonu lay demee ak na yàlla wax noonu la allaaxira di demee mi ngi mel ne la nga xam ne nii mooy penku ak sowu ay yéen mbokk julit lii nga xam ne mooy suratul qiyaama suñu borom yàlla da koo jëkkee di waat mu ne mi ngi waat ci yowmal qiyaama lu tax mu cay waat mbir la bu mag mbir la bu ñàng moo gaa yu xoolal bis boo xam ne bu ñëwee bis ba ci boppam rek dana diire juróom fukki junniy at ci suñu atu àdduna yi bis la boo xam ne balaa jant baa digg doomu daañ xaj jaami yàlla yi ñii ñu yóbbu aljanna ñii ñu yóbbu sawara ca yow xamoo ci ban groupe ngay bokk loolee nekk mbir moo xam ne bu ñàng la looloo tax suñu borom lam ci daal di teg mooy wala uqsimu bi nafsil lawaama maa ngi waat ci bakkan bi yeddaate bakkan bi yeddaate mooy bakkanu jullit mooy yedd ab jullit fu mu mën a toll lu tax nga wax lii lu tax nga def lii lu tax defoo woon lii di rëccu la nga xam ne nii gàttan lu na ci diggante ak boroomam amma yéeféer bu ñëwee yowmal qiyaama moom mooy rëccu rëccu gu màgg ga moom la ko bakkanam di yedd ca ne yow day tey alko nga torox nga mi ngi noonu baram boobu nag subhanahu wa taala ne lu ëpp ci doomu aadama yi jàpp nañ ne bu ñu dee rek jeex na jàpp nañ duma dajale seeni yax a yaxsabu l insaan an lan najmaa isaama bala qadirina ala an nusawiya banaana suñu borom mu ne doomu aadama jàpp ne bu dee jeex na déedéet doomu aadama danaa ko dekkalaat yowmal qiyaama ba yemele la nga xam ne mooy ay baaraamam biñ demee ba junni at ak topp ca la la nga xam ne mooy science découvrir nekk doomu aadama yi kenn yemalewul ay baaraam mooy trait yi nga xam ne moo nekk say baaraam sooy wut carte d'identité wala passeport ñu koy signé kenn yemalewu ko ak sa morom suñu borom mu ne ku nekk danaa la delloo trait ya ma la joxoon muy doomu àllaaxira mi nga noonu koo xamoon ci àdduna boo dajee moom da nga koy xam yàlla dekkalaat ko ñëpp mel nañ meloon ci àdduna borom boobu nag subhanahu wa taala ni li am nag mooy doomu aadama moom daa bëgg doon ku beew ci kanamam bal yuridul insaanu li yafjuru amaama li ëpp ci doomu aadama yi nanguwuñu nekk jaamub yàlla dañoo jàpp ne ñoom ñooy seen boroomu bopp lu leen neex la ñuy def soo remontee ci dëkk yéeféer ya da ngay gis góor gu toog ba mu neex ko mu ne man bëgguma ni ko góor jigéen lay bëgg a nekk gis jigéen joo xam ne dina déedéet man du ma sëy góor sama moroomu jigéen lay sëyal am ci dem ñoo xam ne yegg nañ ba ku ànd ak xajam dem ca mairie ba ñu célébrer leen mu ne xaj bi léegi mooy sama jëkkër lépp loo xam ne jàpp nañ bànneexu bakkan la rek loolee da ngay gis ne dañ cay dugg malheureusement tudd naa leen waaye xam leen ne lépp loo xam ne ma nga seen dëkk yooyee moom la ñuy cuubee suñu dëkk ñun jullit waaye déedéet mbokk doomu aadama doomu aadama liberté boobu ngay bëgg dafa am foo xam ne nii fa la yem ca mooy doomu aadama bi dem bay weddi naan ndax allaaxira kañ lay doon yasalu ayyaana yawmul qiyaama suñu borom mu ne bis mi ngi ñëw loo mënoon a noos loo mënoon a mbëru loo mënoon a fitteerlu bis mi ngi ñëw suñu borom yàlla buqi say bët fa iza bariqa al basar doomu aadama ay bëtam buqeeku ngir la muy gis loolu dana am ci bi ngay sukuraat dana am bi nga dekkee sa bàmmeel ba jàkkaarloog yawmal qiyaama borom bi ne wa xasafa alqamar wa jumi alchams walqamar keroog la yàlla di muur weer bi jël jant ak weer boole leen biddiw yi tasaaroo lépp lu nekkoon décor ci àdduna suñu borom yàlla daal di koy tasaare borom bi nee na yaqulul insaan yowma isin ayna al mafar keroog la doomu aadama di laaj moo ana fan laa mën a daw laqu fa ba mën a mucc ci mbugulum borom bi borom bi ne kalla la wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar borom bi ne déedéet tey laqu way amul amul fay mën a laqu ci ay garab ak montagne amul benn ci mbindaafunu yàlla du nit du jinne du malaaka koo mën a dem làqu ci gannaawam pour mucc ci mbëggalum yàlla amul du muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ibrahim du jibril du mikaayil kenn koo xam ne yowmal qiyaama danga fa ñëw yeyoo mbëggalum yàlla daw di làqutu ci gannaawam mu safaanoo mbokk ak li nga xam ne ñun dañ koo gëm moo di ne li ñuy jàngal sunu ndaw ñi mooy àllaaxira day ka nga xam ne nii muy sëñ Caam muy jóg taxaw képp koo xam ne nii yaakaaroon na ko loolee ci ay mbooloom lañu kenn du leen xisaab àjjana lañ jëm directement loolee mbokk suñuy wax la mu safaanoo ak li téere bi yàlla bi wax waaye ngal la waay doomu aadama xam leen ne téere bi yàlla bii moo jiitu woon moo sax te muy mujj lu dëppook moom doo ngay dëgg lu safaanoog moom ak ku ko mën a wax waxul dëgg loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi subhanahu wa taala ne yunabbaul insaan yawma izin bi ma qaddama wa axar keroog nag la doomu aadama yi taxaw ci kanamu boromam ñu xabaare ko lépp loo xam ne defoon na ko ci kaw suuf ay yow doomu aadama xamal ne sa dund gi yaa ngi bind suba di bind ngoon benn téere téere boobee kan moo la koy bindal suñu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na fu fajar jotee yàlla dana wàcce ci ñëw ñaari malaaka benn malaaka bi loo def ci lu baax wax ko ci baax mu bind beneen malaaka bi loo def ci lu bon wax ko ci lu bon mu bind bu tàkkusaanee ñu lem seeni page yeneen ñaari malaaka wàcc di def lañ doon def kon bés bu nekk da nga am quatre malaaka yu lay bindal quatre page bu dee weer weer da nga am cent vingt page léegi at ba yaa xam looy am ba baa ngay dee loolee ab téere la boo xam ne yowmal qiyaama boo ñëwee loo masa def danga ko te fekk maa li haza alkitab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa ahsaha téere la boo xam ne du bàyyi dara ca la ngay wax ca la ngay jëf la ca néew la ca bari lu dul neppeeg na ko mbokk lii la ñu téere bi yàlla di wax borom bi nag subhanahu wa taala ne balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maazira doomu aadama dañ ko xisaab yowmal qiyaama waaye bala ñu lay bu ñu lay xisaab yow yaay jëkk a xam ci na man ko baax laa àjjana laa jëm wala ko bon laa sawara laa jëm ndax cër yi la yàlla bàyyiwuloon lépp mooy wax sa làmmiñ bi dana wax su ba soo bëggee weddi yàlla tëj làmmiñ bi loxo yi commencé di wax tànk yi di wax mboolem sa der yépp yépp di wax ba sax suñu borom ne dañuy xuloog seen der yi li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in ma yéen suñu cër yi ak suñu der yi lu tax ngeen di seede suñu kaw ca damay ànd ak yéen sawara ñu ne ah sañu ñoo bañ yàlla moo ñu bañ loo moo ñu moo ñu wax loo mbokk lii da ngay gis mooy téere bi yàlla bi nga xam ne yonente yàlla bi de moom ngir bëgg koo gëm jëfe ko heure bu ko jibril daan wàcceel alquran dañ daan gis lu mu daan def mooy di ànd ak jibril di répété di répété pour bañ a ah fàtte suñu borom na ko jaru ko laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jamahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alayna bayaana yow déglul jibril rek su paree danaa ko dajale sa xol gannaaw ba danaa la jàngal nu ñu koy leerale loolu it mu lay jàngal yow waa ji nga xam ne nii sa bopp wala sa njaboot dem jël alquran jàng ko ba mokkal ko bu mu tax nga jàpp ne sa jaan wàcc ne déedéet mbokk sa warugar ak alquran loolu bu ñu ko doon xaaj un dixième la ca alquran dañ koy jàng ba man koo tari na doon mokkal nga ko wala mën nga koo liir waaye gannaaw ba da ngaa war a xam lan la alquran di firi loolu tax borom bi na ko inna alayna bayaana looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nim daan jàngale sahaaba yi alquran noonu la leen ko daan tafsiirale sahaaba yi jàngal ko taabiin ñooñu di ko jàngale di ko jàngale bañ yegg si sunu jamono tey ji borom boobu nag subhanahu wa taala ni kalla bal tuhibbuuna al ajila wa tazaruuna al axira li ëpp ci doomu aadama yi dañoo bëgg àdduna bàyyi liggéeyal alaxira loolee mbokk bu dee ab yéefére duñ ñu tardeel waaye tey li ëpp ci jullit ñi nga xool leen seen 24 heures lan lañ ciy jagleel kër-kër ngir àdduna baax ak lañ ciy jagleel ngir àllaaxira baax mbokk da ngay gis àllaaxira lu néew lañ ko sédd waaye mbokk àdduna boobee heure boo sàgganee ba mu tey laa jaamu yàlla ëwwalan xamal ne munoo caa am lu dul lu neex yàlla doomu aadama bi nekkal agresseur jaayal sa bopp lu la neex defal munoo am lu dul lu neex yàlla jalla wa ala ñaareel ba la nga ca amit lu mu yàgg-yàgg da nga ko fi bàyyi dem sa yoon allaaxira gee nag mooy la nga xam ne nii moom mooy li sax moom la ñuy yonent bi alayhi salaam daan bari di jàng ci àjjuma ju nekk lii di sabbih isma rabbika al aala bal tusiruuna alxayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa li ëpp ci doomu aadama yi fexe ba àdduna baax moo leen tee nelaw fexe ba seen njaboot réussir ci àdduna moo leen tee nelaw allaaxira nag moom ñu daal di koy bàyyi gannaaw waaye borom bi mu ne day wallahi la nga xam ne mooy nekk ci allaaxira su ngeen ko xamoon liggéeyal ko loolu mooy la gën borom bi nee na allaaxira heure bu ñëwee wujuhun yawma izin naadira ila rabbiha naazira wa wujuhun yawma izin baasira tazunnu an yufala biha faaqira keroog gi jaami daañu leen xaaj ñaari xaaj benn xaaj bi yàlla jël leen wàcce leen aljanna yàlla na yàlla boolu ñu ca suñ duggee bel àjjana yàlla jox leen fi xiiwal gi gën a màgg mooy lan mooy borom boobu ñu doon jaamu kooku taxoon ñuy yewu njël kooku taxoon ñuy woor kooku taxoon ñu bàyyi seen bànneex suñu borom dindi kiiraay yi doxoon seen digganteeg moom ñu daal di jàkkaarloog borom bi nga xam ne lu taaru moo ko bind su ko defee loolu dana leeral seen kanam ya dana wàcc ci seen xol ya bànneex boo xamee ne nii àjjana li muy neex neex neex bànneexu jàkkaarloog borom bi moo ko daq loolu mooy benn wàll ga waaye beneen wàll ga suñu borom nee na bu keroogee ña nga xam ne dañ doon kër-këril àdduna fàtte alaxira seen kanam yi dina ñëkk lool ñaaw lool fees dell ak lëndëm ak i poussière borom boobu nag daa dina mi ngi noonu lii mbokk moo ñuy xaar doomu aadama yi di ko déglu waaye suñu borom mu ne kalla ida balagati taraqi wa qiila man raaqa wa zanna annahu alfiraaq waltafati saaqu bi saaq ila rabbika yawma isin almasaaq borom bi dañu xamal ne àdduna ji lu ëpp ci doomu aadama yi di kër-këril fàtte alaxira borom bi ne déet du noonu di du noonu yow mi am xel xamal ne àdduna bi nekkal milliardaire nekkal président nekkal lu mën a doon bis mi ngi ñëw la nga xam ne muy sukuraat dab la la doon sa kër la autoroute bi la la doon fu mu mën a doon sukuraat dab la sa ruux di waaj a génn ñu daal di daw indi ambulance yi woo médecin yi ñëpp daw wër la man raaq ana kan moo ko mën a mocc borom bi ne déedéet moom mii sukuraat xam ne ne tey mooy alfiraaq zanna annahu alfiraaq mooy tey mooy teqalikoo ba mbokk alfiraaq di teqalikoo ba ku nekk ci ñun war na cee bàyyi xel ay yow suñ caam ndax yaa ngi bàyyi xel bis bi nga xamee ne nii da nga won sa soxna yi gannaaw won sa njaboot gi gannaaw won sa oto yi won sa compte bancaire yi gannaaw nar a jëm ci benn pax boo xamee ni yow dong yaa fa nar a yaa fa nar a wiiti yaa fa nar a wiiti ak say jëf yaa fa nar a wiiti ak sa lëndëm ak say sax njaboot géeg yépp nga bàyyi leen gannaaw ndax bis boobu yaa ngi koy bàyyi xel alfiraq borom boobu subhanahu wa taala moom la ñuy nettali nee na mooy bis bi nga xam ne tànku ndeyjoor dana tàlleeku dem dajeeg tànku càmmooñ te ko fekke doomu aadama buy faatu da nga gis tànk yi day fudd ku mel ni ibnu abbas dañ ko firee ni keroog la dernier jéego àdduna di dajeeg premier jéego àllaaxira mooy doomu aadama génn na àdduna ma nga àllaaxira loolee mbokk amul kenn ci ñun koo xam ne dana ci mucc du góor du jigéen du mag du ndaw borom boobu nag ne bu keroogee day ca sa borom lañ la jëmi mbokk rajo yi télévision yi lu ngeen ciy dégg mooy nit ki bu faatoon ñu ne yàlla na ko sëñ diw teeru yàlla na ko yàlla teeroo barzaxu sëñ diw wallahi mbokk loolu amul loolu ci seytaane la jóge nit ki buy faatu ay malaaka ñoo koy teeru ci ndigalu yàlla malaaka yi ñoo jël ruux gi su ko ay mbokkam dugalee bàmmeel du fa fekk sëñ diw sëñ diw ma nga ca bàmmeelam di fa dund la yàlla subhanahu wa taala xam mën na am yàlla nga koy mbugal mën na am yàlla nga koy xéewalal waaye xamul lu xew ci gannaawam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax sëñ diw xamul lu xew ci bàmmeelu ndeyam wala bàmmeelu baayam kon malaaka yi ñoo lay teeru ci ndigalu yàlla yóbbu la fa neex yàlla toogal la sa bàmmeel laaj laaj yañ lay laaj su dee ne yow dëppoo woon nga ak sa borom jalla wa ala yaa ngi commencé sa yowmal qiyaama ci jardin àjjana booy am sa biir bàmmeel soo jaarul woon fa neex yàlla yàlla nga am ngërëmu yonent yàlla muhammad aboubacar omar ousmane na la ñoon ñëpp gërëm waaye bu doo jaaroo woon fa neex yàlla mbugal moo lay xaar ba ila yawmi din ila rabbika yawma izinil masaq borom bi nag ne wax jii ma wax day képp koo xam ne fala saddaqa wala salla koo xam ne dëggalul samay wax koo xam ne daawul taxawal julli walakin kazzaba wa tawalla xanaa daa weddi woon di wëlbati ko topp bànneexu bakkanam summa zahaba ila ahlihi yatamatta gannaaw ba mu jëm ca njabootam nga di puukariwu awla laka fa awla suma awla laka fa awla suñu borom nee na sama wax ji képp ku ko gëmul képp koo xam ne taxawaloo ay julli képp koo xam ne yaa ngi nekk di kaw suuf di puuk réewu dalal sa xel ci na yow amoo lenn looy ragal àdduna ak àllaaxira suñu borom mu ne dana yey ci yow mbëggalum yàlla dana yey ci yow mbëggalum yàlla gannaaw ba nag la borom bi doog a ñëw di tontu la nga xam ne ni mooy yéeféer yi di bàyyi loo xel la nga xam ne muy jullit ñi ca mooy ayaxsabu linsaanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna summa kaana alaqatan fa xalaqa fa sawwa fa jaala minhu zawjayni zakara wal unsa alaysa zalika bi qadirin ala an yuxiya almawta ay yow mi nga xam ne dangaa weddi la nga xam ne mooy àllaaxira ba doomu aadama yi jàpp ne dañ leen war a bàyyi ci seen liberté lu leen neex def bàyyi la sa liberté lu la neex def xanaa doomu aadama fàttali ko woone da nga masoon nekk toq ma nii yu ci sa biiru yaay suñu borom yàlla wëlbati la def la deret def la yàpp rof la ay yax génne la ngay nekk ab liir ba tey nga toll na sa baay yàlla mi la jaarale foofu yépp ñii mu def góor ñii mu def jigéen ndax jàpp ngeen ne léegi nag dana leen may leen la nga liberté ci ne lu leen neex def leen déedéet mbokk jullit na am mbokk jullit suñu borom yàlla may nañu benn liberté bu ñu tënk mooy tëralal nañu aw yoon wàcc ay téeréem yónni ay yonentam daa dina nag yéen samay jaam mi ngi nii saaw yoon a ngi nii samay ndigal a ngi nii sama yonente ngi nii léegi nag i'malu ma shi'tum loo leen neex def leen na am doomu aadama bu ko neexee lekk ba regg taxaw ci mbedd mi ne may yàlla bu ko neexee lekk ba regg taxaw ne àllaaxira may ramu jaam yi bu ko neexee taxaw ba yegg daan ne biig maag yàlla naanandu ataaya loolu suñu borom da koy seetaan rek i'malu ma shi'tum lu leen neex def leen ala kulli xaal ndigal yaa ngi nii tere yaa ngi nii yoonu àjjanaa ngi nii yoonu sawaraa ngi nii i'malu ma shi'tum la leen lu leen neex def leen suñu borom yàlla nag ne ah doomu aadama moom jàpp na ni dafa war a nekk ci suuf rek lu ko neex def xanaa xamul woon fa ma jaar ak moom xanaa ki man lii ëllëg gi si biir munta dekkal ñi dee ah kay mbokk suñu borom yàlla am na kàttan ci lépp mbokk lii mooy téere bi yàlla bi lii mooy waxi yàlla wallahi lazi laa ilaha illa huwa amul kenn ci ñun lu dul passage yi ñu wax da nga ci mas a jaar ku nekk ci ñun dana mas a jaar ci dee ku nekk ci ñun dana dajeeg malaaka yi suñ demee yowmal qiyaama suñuy téeram ak ñu fee xaar suñ demee yowmal qiyaama duñ fa am ndimbalu kenn ku dul yàlla jalla wa ala duñu am kenn ku ñu fay teeru duñu am gannaaw kenn ku ñuy laqatu lu dul suñu borom jalla wa ala loolu moo tax ba yow mi nga xam ne nii borom xel nga suñu borom subhanahu wa taala nee na man kaana yarju liqaa rabbi falyamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ay yow mi borom xel nga bëgg ëllëg boo dajeeg sa boroom sa boroom teral la tabbala aljanna nga la waay jëfal jëf yu baax lan mooy jëf ju baax mooy loo xam ne yonent yàlla muhammad moo ko jàngale ba nga koy def yàlla rekk tax ca suñu boroom mu ne bul ma bokkaale ak kenn lii day boo ci saxee mbokk jullit suñu borom yàlla booy jëm yowmal qiyaama la fa nekk ci tiitaange tar na waaye fa nga génne ci bàmmeel la la malaaka yi ñëw wër la إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملائكة نيو دال نلا غيس nga day tay moy bisu fitna bisu ñang waye nak yow na sa xel dal yalla gërem na la ajjana mooy nar a nekk sa wàccuwaay yal na yàlla boole ñu ci tere teral boobu yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne yar yi malaaka yërmaande yi ñoo leen di teeru suñ daaji leen bégal ci ngërëmal boroomam yal na yàlla may ñu pas-pas bu sell boole ñu ci jaamam yi koy jaamu duñ ko bokkaale ak kenn boole ñu ci jaamam yi koy déggal duñu déggal keneen ci lu safaanu ay ndigalam yal na yàlla may ñu aafiye fi dunya wal axira yal na yàlla laabalal ñu suñu réew ci ñépp ñi fi nekk di woote di yàq pas-pasu doomu aadama yi yal na yàlla laabalal ñu suñu réew ci ñépp ñi fiy tasaare ay biddaa di suul sunna yonent bi yal na yàlla yërëm suñu ndaw ñi musal leen ci ayu ñi nga xam ne ñooy dajjal yi leen di woo di leen teqale ak seen borom ak seen yonent yàlla yal na yàlla rafetal suñu mucc defal ñu àjjana firdaws mu suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alaxirati hasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin